من الشيطان الرجيم وإن عمل أنقوهن في كل يوم تأمر الناس ناسيا لنفسك ذا عار عليك يا عيب ولا دي من بس بنك نغي وخ لو باخ دي دي لو باخ تفات سبب القران افلا تعقلوا على جمالك نني وان بو فكين عملا سجف ام كحت سيال نكو علما ak xam xam lan mooy nikaax lu muy firi mooy boole wala déet boole loolu lay firi xam nga comme ni nga waxee ne nakaxatil aynu nakaxatil nawmu al ayna wala nakaxa nawmu al ayna nelaw dugg na ci bët yi wala déet waaw wala nga ne nakaxatil xasa axfaafal ibili kon mooy dugalante bo kon wa in su fekkee ne amalan sa jëf an kaxta boole nga ko elman ak xam-xam tanaasala ñoo lay jural ñoo lay jural tanaasala naf lu mooy jur bi mulkin nguur goo xamante ne mu daamin nguur gu sax dàq lay sa fii te amul xurubun attaqué amul xe nguur gu amul xe nguuru xam-xam boo xamee jëfee da am nguur goo xamante ne amul coup d'état doo xeex dem jëli ko duñ la xeex pour folli la wala de parce que borom xam-xam yi nga gis tey jii ni li ma li fal Macky moo ko fa moo leen fal li ma fal Macky Sall moo ko fal mu nga noonu amul coup d'état amul dem xeexi pour jot ca moom la ñuy tuddee xam-xam tey ji góor gi masalan li ci li mu nekk tey jii nii nguur la bu mu dem uti dañ ko koy mos a coup d'état moo tax mu ne la tanasala bi mulkin dina la jural gis nga ko mulkin nguur mu daamen bu sax dàq laysa fihi nekku ca xurubun la ñuy tudde attaquement mooy xeex rek allahu akbar wa illa bés boo ko defulee fa inna naxla loolu ñuy tuddee garabu tàndarma laysat manta nekk bi naafi man la jëriñ ida lam yakun fiha boo ca fekkul ak simaara meññanteef tànge hmm? gis mu ne fa illaa boo ko defulee naa la wax leen fa inna naxla bobu ñuy tuddee garabu tàndarma hmm? fa inna naxla loolu ñuy tuddee garab mu ngi noonu laysat mënta nekk bi naafi en man la jëriñ walla déet ida lam yakun fiha bu ca nekkulee asimaaru meññanteef tatibu boo xam ne dana mën a ñori garabu tàndar bu dul am doom duy njëriñ kon xam-xam bu àndul ak jëf luy njëriñam xam-xam bu àndul ak jëf luy njëriñam lu jar a bàyyi xel kon jëfel sa xam-xam wala déet waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu ne yowmal qiyaamati ña ñu njëkk a jugal ci biir jahannama mooy ñi xam te duñ jëfee kon jëfe bi am na ci solo de wa illaa boo ko defulee boo jëfewul sax xam-xam fa inna naxla garabu tandarma laysat manta nekk bi naafe njëriñ ka ko jëmbat ida lam yakun fiha boo ca dul fekk asimaaru meññan tef yoo xamante ne tatibu dina la ñoral kon aleyka jëlal at tuqa ragal yàlla ansu aleyka jëlal at tuqa ragal yàlla allahu akbar inna al xuyuura mboolem teraanga ya jamiaha bem jeex nag jamiaha xuyuura jamiaha badal naka tawkid la innal xuyura jamiaha tawkid la jami mboolem teraanga te dammanaha mu ngi ci biir ragal yàlla inna taqiya gis nga ki ragal yàlla na jibu mooy ki yeewu gis safara bañ a dugal sa lan la yeewute fi nga koy xamee mooy gis safara jël sa loxo dugal nga ne ko defay la dafay dof dof wala de gis safara jël sa loxo dugal ci ñu ne dof la wala dafay dof dof la kon gis safara teggi sa tànk lan la yéewu la wala yéew yéewul la wala de kon naka noonu ki ragal yàlla xam jahannama xam yàlla ni mu toll moytu ko yéewute la bokk moo tax ma ne inna taqee ki ragal yàlla ci dëgg dëgg na jib moom mooy ki yéewu de he bu leen ma fontu kon alayka jëlal at tuqaa ragal yàlla mhm. innal xuyuura mboolem teraanga mhm. jamiaha bi mu jeex tàkk mhm. te da mën ragal yàlla moo ko ëmb ñu ngi jànge ci téere boobu rek alwaaw li kam ragal yàlla bi lépp lépp lépp lu yàlla wax rek sedd ko ñu ragal yàlla lu yàlla tudd rek sedd ko ñu ragal inna lil muttaqina mafaza xool inna taqiya mu ne gis nga ki ragal yàlla na jiibul kooku mooy ki kon yàlla ñu yeew ko raayaaka gis nga li nga njaboote raayaaka li nga njaboote hmm? faturu dakk leen an maharimi li yàlla tere rabbina suñu borom sa njaboot li yàlla tere tere leen ko lan mooy sa njaboot bul dem foog ne sa doom la de yàlla li muy wax fii nii bul dem foog ne sa doom la de bul dem foog ne sa jabar la de waaye sa njaboot mooy kan mu ne mooy lan sa loxo bi sa tànk bi sa bot bi sa nopp bi sa gémmiñ bi moom la la nammal ne raa yaaka sa njaboot fatru dàq ko an maxaari mi li mu tere rabbina suñu borom loo koy dàqee bi min saati min saati mooy et ban et taqwa etu ragal yàlla bi min saati taqwa etu ragal yàlla nee na yejzi minka gis nga ko dana la fay mu ji moom yàlla bi nga xamante ne moom mooy kii nangul jaam wala de kon jëlal etu ragal yàlla ngay dàq sa cër yi ci li yàlla tere sa loxo buggee lalu lu xaraam jëlal etu yàlla etu ragal yàlla nga door sa bët bu buggee xool xaram xaraam jëlal etu ragal yàlla nga dóor nii raayaaka sa njaboot mooy sa cër yi fatru dàq leen an mahaariba lu mu tere rabbina suñu bi min saati ca et taqwan ragal yàlla yajzi minka dina la fay kan moo lay fay mu jiibu yàlla bi nangu ñaan bi nangul jaam wala de alaa ne wér na de inna xayra zaadi li gën ci yobbal yépp nag ba mu jeex taqwa ilahina mooy ragal suñu borom alaa ne wér na inna xayra la gën azaadi ca yobbal ya taqwa mooy nga ragal ilahina suñu borom wala taxsha bu ragal nag mm-hmm. gayrallahi ku dul yàlla mm-hmm. fa huwa gis nga moom yàlla xasibun mooy féete jaam fu ne mm-hmm. xasibun wa qaalu hasbuna allahu wa ni'mal alwakil wala de kon moo tax mu ne la ala wér na inna xayra zaadi alquran waxu ko li gën ci yobbal taqwa ilahi naa mooy ragal yàlla boo xoolee am na oto boo xamante ne masalan welo mën na laa yóbbu fi ba Dakar wala da nga tardé wala de welo mën la yóbbu fii ba Dakar walla da nga tardé saret saretu mbam mën na la yóbbu fii ba Dakar wala da nga tardé de saretu fas mën na la yóbbu fi ba Dakar waaye da nga tardé de naka noonu ba ci oto ba ci raay bi ba ci lan ba ci avion bi seetal yàlla nag ne yomal xiyaamati fa ngeen jëm fa ngeen jëm dama lay laaj deux mille cinq cent mën na bu fi fii ba Dakar laajalaam deux mille cinq cent mën na la yóbbu fii ba Dakar ci oto yi lan moo la mën a yóbbu fii ba Dakar six mille wala wala quatre mille bu dee oto yu mag yi gis nga yàllaa xam bés penc sabru mu fi yaqiin mu ngi fi iman mu ngi fi wala déet shukru mu ngi fi wala déet ah rida mu fi waaye itam boobu ñu tuddee taqwa mu ngi fi mu ne taqwa nag mooy simil bi la mën a yëggali ca dégg nga wàli bo six mille bi la mën a <laughs> wala quatre mille la mën a mën a yëggali Dakar mu ne mooy taqwa taqwa mu la mën a la fa mën a yëggali boo amul taxawaay doo mën a yegg da ngay ci yoon bi bu ñu càng te am na autoroute autoroute nga wàcc fa mm-hmm. doo gaaw am ku la yóbbu de xanaa rond point kañ wala lan rond point wala wala wala arrêtement wala ah foofu neex na am ku la yóbbu dama dem ba ci diggi yoon ci autoroute subhanallah oo jë loolu ci jar bàyyi xel la la du noonu mm-hmm. moo tax yàlla mu ne mooy la mën a yëggali mm-hmm. ca fa nga soxla ca yàlla wala de mm-hmm. walawla budul woon sukunul aalamina mbindaa foo ni jëng ba ñu jëng li xayri keneen ku dul yàlla woon ñun jëng bi ñu jëng bàyyi yàlla dem lijjante ji àdduna ak leneen raawuhu danañ ko gis yaanan bët ak bët ku wax ku ko wax boo ko wax kon moom si wàlla bokk ci gis yàlla yi lii waxu nit ñu baax ñi la gis yàlla waxu nit ñu baax ñi la gaa ko jël rek di koy fooye waaye wax bu xot la wax bu rëy la bu wér tàng nag waxu ko raaw ayaanan gis ko ni jaxlaan kon yow boo laajoon alaaj ma ndax gis nga ko lu lay wax gis naa ko parce que waral mooy huwa lam yakun li xayri ki ci la bokk mm-hmm. walaw laa mu ne budulu woon mm-hmm. sukunu jëng ba mu jëng al alamina mbindaa foo ne li xayrihi di seet keneen ku dul yàlla mm-hmm. lara awhu danañ ko gis njool ay yaanan bët ak bët alaaji maa leen maa wax wal ilaa gis nga yàlla karibun dafa jege yàlla soriwul kuy romb rek wax leen ma kuy laqatu fi wax leen wala jegewul inni li mu cag inni qaribun ujibu daawata daay loolu la wax de kon yàlla def la jege boobu kon gars yi ñi taxawaalu nii di wax naan dañuy gis yàlla kalimatu xaqin la waaye urida biha al batil wax bu wér pëng la waaye nag ñoom ñooy ñi ci saasa yi kon gis yàlla alaaj ma ni man dane waxin la nag wala déet waxin la waaw bil basira bil basira لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير wala déet li ko waral mooy kenn di ko gisee ci lan ci bët waaye fi ñu koy gisee mooy ci basiira dem waxal mu ne ko yéen ngeen di fond hmm. yàlla nu mu tolli nu mu màggee ñu hmm. li wax ci moom nu mu réyee ngeen ni dem ngeen koy gis hmm. loolu nu mën a nekkee mu ne ko yow jàpp nga sa ba nga yàlla nu mu tolli ak nu mu réyee nu koy màgg lu ko war a muur ba kenn du ko gis <laughs> jàpp wax na dëgg de voilà uh-huh. <laughs> loolu mooy wax bi <laughs> na ko jàpp nga sa bopp de mm-hmm. yàlla ni mu toll ak ni mu réer lan mooy li ko mën a iir comme mm-hmm. mu ngi ne fang nii mm-hmm. waaye yow yaay gëmm kañ bi bañ koo gis waaw ah, wala de te loolu nag moom moo am loolu moo bàyyi xel wala de yàlla dañ koy gis nii waaye nag yow mii est-ce nga koo gis est nga boo xulee gis ko booy xulli rek da koy gis bil basirati laa laysa bil basar laa tuddikul absaar wa yudrikul bil basira yura bil basira ak kon lu mën a nekk la bo mm-hmm. wala déet mm-hmm. naam déedéet ñoom waxi foofu moo tax nag ma ne la waxuñu waxuñu réer lañu waxuñu réer lañ ala e wér na nag mm-hmm. axlisil amaala sa jëf sellal ko mm-hmm. axlis na nga sellal al amaala say jëf mm-hmm. waxuma ko de mm-hmm. ku ko wax mu ne bu ko defee nag waalam na nga xam ne bi annahu moom yàlla xayurun ku fiirango ñi gën a fiir yëpp yàllaa leen gën a fiir moom la jig na ñu rëy yëpp yàllaa leen gën a rëy moom la jig na fala yarda du nangu alquluba ca xol ya mooy ma mafool bi tashubu su fekkee ne am na leneen lu ca bu dee am na leneen dugg ca xol bi yàlla génn na fa yàlla bu ñëwee ci sa xol fekk fa keneen ku dul moom génn na bàyyi na la fa damaa bëgg yàlla keneen déedéet génn na yàlla bokkatu moom rek nga mën a bëgg mu daa ko moo tax mu ne la ala wér na axlis na nga sellal al amala sa xeetu jëf waalam na nga xam ni bi annahu ne moom yàlla boobu nag mhm. gayrun ku fiir la mhm. bugul ku ko bokkal fala yarda du ma sa nangu mhm. alquluba ca xol ya tashubu su fekkee ne am na lu jaxasoog moom wala tarda te bul nangu itam gis nga ko wala tarda bul nangu de bi an tulfa ñu fekk la an tulfa ñu fekk la muti an ngay tepp ngay topp li gayrihi keneen ku dul moom yàlla du ko ma nangu wala tarda bul masa nangu wala mhm. tarda mhm. bul masa ñu fekk la an tulfa ñu fekk la mhm. muti an ngay topp li xayri keneen ku dul yàlla wa dalika te gis nga façon boobu sax yastahi loolu dafay rus samimun nit ku am ngor aribun te am xel wala de sa sang bi sa sang bi wala sa baay wala sa sa sëriñ wala daal sa kilifa moo lay jox nga añ jox la nga reer jox la nga ndekki waaw wala déet xottil la sa yére yow nga jog laa wax de dem ci beneen tool bàyyi fa toola lii lan la sa baay ngay añee ci këram di ndekkee ci këram di gis tey jii sa kër baay nga xëy ndekki maama añ nga añ nga dem ba réer nga reer tabaski yéeg si mu jëndal la yére nawet jot nga dem beneen tool bàyyi toolam loolu lan la ku la ko def loolu kooku lu mu am am na ngor sa doom bu la ko def est-ce que doom bu am na ngor doom bu baax la doom bu baax nga koy tudde surga boo am muy defee noonu surga bu baax la taalibe boo am muy def noonu kooku taalibe bu baax la jabar joo am muy def noonu kooku jabar ju baax moo tax mu ne la déedéet seetal ku am ngor am xel du ko nangu maanaa yàlla moo la xëy defal yàlla lay jox ngay ndékki di la jox ngay añ di jox ngay réer moo lay dundal lépp loo am moom la may la wér gu yaram may la xel may la nopp may la bët may la lépp nga wëlbateeku di jaamu keneen ku dul moom am nga ngor est que ngor a nga fa est que xel a nga fa sax moo tax mu ne la wa loolu noonu mooy day so topp keneen ko dul yàlla yi def koy rus mm-hmm. samimun ko am ngor mm-hmm. samim mm-hmm. samim mooy ko xamante ne mënoo kanam kon mooy ko am ngor aribun koo xamante ne ko am xel atushirikuhu ndax da ko bugg a bokkaale xayran ak keneen walam yako xaadiran te kooku fekkewul woon la day ci kanamu yàlla la daa xalkil wujudi ba muy bindi mbindaa foon aribun kenn bala yàlla di bind nit dafa fekke léegi kenn fekkewul yàlla bind la ba nga yegg si fi nga toll te ngay delluwaat ci nit ñi ne mën nañ laa jiri te fi mu la bàyyee bàyyi jëlee moo gën a metti kooku xela nga fa est-ce que moo tax mu ne la atushirikuhu ndax noo ko mën a bokkaale xayran ak keneen walam yakute mastan nekk xaadiran teew ladayhi ca kanamu yàlla la daa xalqil wujudi ba muy bind mbindaa foon ya gis nga ko aribun kenn ku mën a wax foofu amul ku taxaw ne yàlla defal ni yàlla defal ni yàlla defal ni kenn fekkewu arib mooy ku mën a wax commentaire yàlla defal ni yàlla bul defee ni yàlla defal ni yàlla bul defee ni baay ak yaay sa bokkuñu ci wala de amin baadi gannaaw ba mu bindee xalqi ba mu bindee azzaati ba mu bindee sa jëf sa jëmm gannaaw ba mu bindee sa jëmm wal feel bindi sa jëf rabbina suñu borom yu maasalu ndax mën na niroog moom gis nga ko aafil mujrimina ki nga xamante ne moom mooy gis nga ko ki bañ aafi mooy ki bañ al mujrimina saasaay afa na jàllul muslimina kal mujrimina moom mi leen weer moom yàlla bi leen weer ndax mën na ne yàlla bi mu bindee mbindaafoon mhm. bind jëfam mhm. amin baa di gannaaw ba mu bindee xalki ba mu bindee azaati sa jëmm yow ànd mhm. wal bind sa jëf ndax wallaahu xalaqakum wa ma taamaluuna ndax yu maasilu mën na tolloog yàlla aafil mujrimiina ki nga xamante ne moo kii gis nga ko mooy ki xëcc ki oo ki oo ki oo saasaay kooku mooy kat iblis ndax mën na tolloo ki oo saasaay yi mm-hmm. kooku mooy kan iblis mm-hmm. salibun ki kiweeru mm-hmm. ki wéeru ki xam nga salaba mooy ku ñu daaj ci kii bi ku ñu daaj ci kii bi ci ci ci moo tax ñu tuddee see daay sa salib ca kii ba ca ñu tuddee salib ñu mu namm ci ku ñàkk ku ñàkk jom loolu arab bu koy wax noonu la ko waxee salibun mooy nit ku ñàkk jom te kan moo gën a ñàkk jom li yàlla bind yëpp iblis iblis la ci ndam ba léegi salim kon ndax nit mën na jël yàlla gannaaw ba mu bindee sa jëf bind sa jëmm nga di koy jël di koy tollaleeg iblis wala ne mën na ne moo tax ci alquran ci suratul kaafi mu ne la naka ngeen may jëlee di may remplacer iblis ndax moom est-ce fekkee na sa ba leen di bind fekkewu ko bisa li zalimina badalan ma ashhadtuhum xalqa samawati wal ardi wala xalqa anfusihim te wa ma kuntu muttaxida al adudan iblis du ma ko boole ci sama mbir mukk bokku ci moo tax mu ne noo ko mën gi yàlla yemale ko ñun nag yemaloo yàlla ak iblis wala dañ ko yemale ak iblis ñun Sénégal fii dañ yemale yàlla ak iblis dañ ko yemal ku ñu gën a fonk di yamaren ko de mm. o woote yàlla woote mm-hmm. lan mm-hmm. ñu jëm gis la ñu bi seen alway fi di dox nii ku ñu wuyu ji amin mm-hmm. baadi gannaaw xalki bi yàlla bindee azzaati sa jëmm ku la bind yow njool dama lay laaj ku la bind wal fi'li bind sa jëf ku bind sa jëf yu maasilu ndax war nañ tollaleeg yàlla boobu yàlla boobu ndax war nañ ko tollalee ah fii kawoo al mujrimina saa saay mooy iblis salibun te ñàkk jo ndax mën nañ ko tollaleeg iblis ñu wuyu ko ne ko déedéet waaye nag ci anam bu gën a yées nag mooy tollalu yàlla ak iblis dañ jël iblis teg ko ci kaw kan waaw dañ jël iblis te ko ci kaw kan yàlla est-ce que yemale yéemale ko rek gravité la ñun nag yéemale leen léegi dañ jël iblis moom mooy gis nga ko patron jël yàlla muy lan mooy surga bi surga kañ lay añ bu xooñ bi desee o bu añ desee bu xooñ bi desee bu añ bi desee moom bokkagu ci waaye bu xooñ bi desee moom la ñuy jox yàlla nag mooy bu ñu demee ba dara ñu door a ñëw ci yàlla yàlla yàlla musal yàlla na yàlla musal mafu voilà mafu acca bo ko ñu def